e njaga e, njaga ana buuba a ah, mi ngi fee njaga ana ngoone njaga buuba hmm? ci lu ngeen ne ana seen grand frère. eh Dorine. Ah, non non directeur baa ngi ne ñi ko mag la buuba la buuba ay kay ni nga dëgëre et voilà mbokk yeeg copains yi nii seetaan ci suñu rubrique c'est pas sérieux xam ngeen ne nag euh, Sénégal rupuj puuj ci la dëkk maanaam boog extraordinaire quoi xam ngeen ne nag fi mu nekk université étudiant <laughs> bañ duree jàmm quoi ay étudiant daal la fa génn seeni saak sac seen i valise seen ëmb xam nga Sénégal aussi bu masaan a jib tabaski wala korité gars yi dañuy dem village julli ji affaire bi loolay xaw a nuru quoi xaw a saf mais nu ànd xool rek. ñenn ci ay étudiants yoo xam ne ay yëngalkat lan nag dañ daan yëngal rek nag di déconné <laughs> lépp nag ci bourse yi gerveyao mañato eh ku def lu rëy am lu rëy wala lii bagage seen ëmb ya zaak ah du doon yëngu-yëngal yaakaar ne dëkk bi lu la neex nga def xale yi dee ngi nii jooy nanu bursu bay bu wadee lii lan leen ci tegal nee nañ leen nu jëli horaire bi te ñibbi dëkk ba jël horaire bi nuyul ma sa ndey ak sa bàjjen ku ne yaa xam fa nga jugeex fa nga cosaanoo ah léegi dal ku yëngu yëngal nu génne la génne la ci biti xaale yaa ngi nee nanu nanu ñaw tranquille et voilà noo ko bokk gisandoo xam ngeen ne nag yooyu les étudiants doy ba tey mbokk yi ci suñu rubrique c'est pas sérieux xam ngeen ne nag hôpital Abass Ndao <laughs> médecin gerew nañu ñetti fan bay dugg ay ñeenti fanax yu ni mel mais nag malaat yi nee nañu ñoom ñee bu mu fëgalee après ñoom nooy gerew parce que aussi yenn kenn xamul lu muy nuru quoi dañuy gerew nee na dootuñu fa dem sax di fa tëdd sécurité ginnaaw hôpital bi géréw na géréw yu métti ba askan wi yëpp yëkku ci seen biir xol tey jii nag malaat yi nee nan kenn ku leen ko dëbbin ku ne nuru kin la ko bi yoon ñoom nooy dem géréw ana naka la malaat yi fas yéenee géréwee malaat yi nee nanu duñu nangu naan benn comprimé ku leen jox médicament duñu ko jël te ku leen laaj ndax yaa ngi tane li lay wax mooy tane dara tous kon nag malaat yi mer nañu nee nan gerew bi kenn xamul fan lay mujj fi mu ne nag ñoom noo aye seen tuur jot na ñoom noo war a gerew voilà noo ko bokk gisandoo xam ngeen ne nag euh, nit buy sonn ci yow da nga koy jaajëfal vraiment jobaay monteur bii nii man daal yeex naa laa am quoi vraiment booy jobaay li ngay monter moo neex moo toog man ki ma doon monté xaw na maa rey li mu monté li mu daan monté dara baaxu ci dara tous wala wu kin xam naa nag dinaa leen may image du jour ngeen gis ko vraiment Ndiaga ak Bouba am nañ fi ay turandoo quoi am nañ fi ay turandoo bon turandoo yu jantal turandoo yoo xam ne tubaarkalla macha allah quoi mais sama question rek mooy laaj Iran Ndaw bu fekkente ne mbirum làmb bi yaa largement yow lu ma la wax koy def da dégg. bu fekkee mbërum làmb mi dafa nekk en action nekk en action nekk en action nekk en action fekk arbitre bi sifflé na mu nekk en action jékki-jékki rek dégg jàkka ji nodd à côté allahu akbar naka lay téye gardam pour julli te du yàq kombaam boobu laay laaj boo nu ci mënee may ci semaine bi nga may nu ko <laughs> image du jour eh njaga njaga e buuba